wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana amin wa ala ali beytihi l kiram at-tayyibin at wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di assalaamu aleykum di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi al xalifatul am lil muridin mawlana cheikh mahamadil muntaqa di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala may ko fanu gudd ànd ak wér yaram ba naal yi mu naalal lislaam ak yoonu morit mu eggale yëpp te ñaan ko moom di ziyaare mbooleem jullit yëpp rawatina morit yi ci weer wu màgg wi nga xam ne ci lañ nekk di weeru tabaski waaye di ndokkeelaat bu baax sëñ Muntaxa ci bis yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy taxawal lu ci mel ne bis bi nga xam ne moom lañ génn alxames bi jàll di bis bu mu jagleeloon zikrullah muy tudd yàlla borom bi subhanahu wa taala te suñu mbokk baay faal yi taxaw ci taxawin wa gën a rafet lool loolu nag dañuy wax ne rekk liy doon jubluwaay bi mooy sëriñ bi xam ne ne jamono ji ñu tollu jikko yi mi ngi tàmbalee yàqu te jikko nag liy waral muy yàqu léeg-léeg mooy doomu aadama daa am ci ñaari mbir yu ko suñu boroom bindee ñaar yu ne ci moom muy ruu ak yaram yaram wi nag mel na ni ñu baree bari danañ ko faral di toppatoo toppatoo ba ca war ci di ko dundal ci di ko koddu koddaay yee gën a taaru di ko jox muy naan bu feebaree ñu faj ko loolu mooy toppatoo yaram waaye beneen bi nga xam ne moom la àndal muy ruu ru nag daa am lu koy dundal muy jaamu yàlla te ci biir jaamu yàlla googu ci la tudd yàlla nekk lu mel noonu nag tax mu sàkk bis boo xam ne dañ koo jagleel di ci tudd suñu borom ku ne xam ne na tudd yàlla yàlla moo digal ñi yàlla ñuy tudd yàlla lu baree baree bari nga xam ne dañ koy tudd lu baree bari bariwaay booba nag amut ab dayoo maanaam amut ab yamukaay lu mu gën a bari rek gën a baax ci xolum nit waaye lu mu gën a bari gën a baax ci ruuxuk nit ndax suñu borom subhaanahu wa taala moo wax ci alquranul karim ala bi dhikrillahi tatma innu alqulub nee na ci tudd yàlla la xol yi di amee ak dal moo tax ñuy gis sëñ bu mag bi radiallahu taala anhu di wax ne dhikrul ilahi quutun lil qulub tudd yàlla mooy dundal xol yi nga ne foofu bu ne xol day dugalaale ruu nga kon tudd yàlla mooy dundal xol mooy dundal ruu kon loolu bis la bu am solo boo xam ne ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax di ñaan mu doon bis boo xam ne buy sax te ñu koy ànd ak moom ak di ko ànd tamit ak suñu mbokk Baay Faal li nga xam ne ñoom ñoo koy taxaw beneen bi ci des mooy bis bi nga xam ne da koo jagleel xasida yi Sëriñ Tuubaa muy bis boo xam ne 13 juillet bii muy alxamis bii di ñëw rek ci lay war a doon insha allahu taala moom it mu dénk ko ku mel ne sëriñ Hamza mu sëriñ soy bu Mbàkke ak ñi ne ñoom la ko àndal muy bis bu am solo lool ci lislaam waaye bis bu am solo lool ci yoonu murit ndax tudd yàlla bi ñu doon wax bi ñu doon tudd sànq xasiday sëñ Tuubaa yi ma def naa ne daanaka génnul loolu ndax tudd suñ borom la ak sant suñu boroom ak ñaan ko ak jéggulu ak tuub ak kañ wala tagg yonte bi aleyhi salaatu ak julli ci moom daanaka xasiday Sëñ Tuubaa yi boo doon xool du génn xeet yooyu te yooyu yépp yi ci ëpp lay duggaat ci biir tudd yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kon bis la bu am solo boo xam ne euh, ñi ngi ñaan mu doon bis boo xam ne moom it day sax ba faaw xëy na ba la ñoo ñëw nag ci tomb waxtaan wi nga xam ne moom la war a waxtaanee euh, bis yu mel noonu dana aaja nag ñu koy laltaayalee ay waxtaan yoo xam ne dañ ci tànn ay tomb yu laal xasida yi sëriñ ndax xasida yi bari na ay mbóot ak ay secret yoo xam ne mi ngi ci biir te ñu baree bari xamuñu ko kon yooya man nay waxtaane waxtu wu ne rawatina jamono ji ñu toll muy jamono ji ànd ci lañuy ñuy waajal euh, bis boobu nga xam ne dañ ko jegleel xasiday sëriñ Tuubaa yi tom biñ tànn nag mooy ash-shi'r al-qur'ani aw at-tatrif fi al maanaam way woo xam ne ci alquranul karim da ko sëriñ bi di jële wala sax ñu ne tatrif tatris mooy jël ak xasida nga tënk ko ci dara nga tënk ko ci dara loolu mooy thème bi nga xam ne ci lañ fa séene waxtaane ku ne xam ne ne li ñuy wax at tatrif muy tënk ak xasida ci dara bu njëkk waykat ya jiitu woon daan nañ ko def waaye ñoom dañ daan jël ak xasida ñu tënk ko ci turu ay barab comme lu mel ne almadinatu almunawwara nga xam ay araf la nga jël alif gi andi ci aw way laam gi andi ci way miim gi andi ci bayit daal gi nga andi ci bayit ba araf yooyu jeex am na ci ñoo xam ne ci turu ay nit lañ ko daan def comme lu mel ne turu ahmadu kan da jël al alif al mahmuza tënk ci benn bayit jël xaa gi tënk ci benn bayit jël miim bi tënk ci benn bayit jël daal gi tënk ci benn bayit ak yeneen forme yi ñu ko daan faral di defee waaye sëriñ bu mag bi nag moom bi mu ñëwee yooyu waykat yu njëkk yi doon def am na ci yoo xam ne def na ko waaye nag da ci am lu mu ca dolli loo xam ne ma def naa ne bokk na ci ñi ci raw wala ñi ci jiitu muy jël ak xasida tënk ko ci benn ayab alquranul karim maanaam jël lu mel ne wa innaka la ala xuluqin azim mu tënk ci ak xasida ba xasida ga jeex du ñu wax ne nag sëriñ bi moo ko njëkk def waaye bu dee ci senegal ci gëstu yi nga xam ne joteef na ko am mëneef naa wax ne euh, sëñ bu tedd bu baax te alhaaji omar futi yu taal bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a def mu jël ayab alquran nga tënk ci ak xasida bam jeex léegi nag totrif mooy lan buñ koy wax baatub arab la mu ngi jógee ci tarrafa totrifa danañ ko tuddee tamit tatwiic dinañ ko tuddee tasjiir ci ñuy jàng lu jëm ci walla euh, balaaga wala lu jëm ci wàll arut mooy binaaw qasidatin takunu alxurufu al awail min abyaatiha isman aw asmaa aw kalimatan aw jumlatan aw jumalan wa tusamma alqasida xiina idin mutarrasatan aw mu taw wajatan aw musajjaratan aw ukru siitiyatan xam ne yooyu yëpp ay tur la yuñ koy tuddee bi ci njëkk mooy dañuy jël ak xasida dañu tabax ko araf yu njëkk ya dañ koy tabax ci aw tur wala ay tur walla ab baat wala benn la muy benn phrase wala ay phrase su ko defee xasida gi jamono jooju moom la ñuy tuddee alqasida al mutarrasa wala alqasida al mutawwaja wala alqasida al mushajjara ci ñuy jàngale luga arabiya loolu ku dellu ci gëstu bi nga xam ne suñu mbokk al baaxif di gëstukat bu mag ak docteur Abu Madiana Souhaïbou Thiaw bi mu def tuddee ko at tatriithul ash'ari inda al abdil xadim danga fekk lu yaatu lool buñ demee ci annafahaatul miskiya bi nga xam ne ku ñuy wax Muhammad Abdullahi al di kenn ci naari gànnaar yi nga xam ne ci taalibey Sëriñ Tuubaa yi la bokkoon doon koo xam ne borom xam-xam bu mag la woon muy téere bi nga xam ne bokk na ci téere yi njëkk a bind ci istuwaaru Sëriñ Tuubaa moom day wax ne bi wax ci sëriñ bi mu ne yurattibu awwala abyaati qasidatihi ala xurufi ayatin sarixatin bi dalika algaradi alladi yurid wa dalika huwa aadatuhu fi qasaidihi wa andaamihi falam yaqul mundu zamanin qasidatan wala nazman wa in balaga ma balaga min attuuli illa waqad kaana murattaban ala xurufi ayatin sarixatin bi dalika almaqsad wa hada mima lam yusbaq ilayhi wa dalika min bodi gawarihi fi jamii alfunuuni alarabia nee na sëriñ bu mag bi euh, dafay jël njëlbeeni way xasi xasida yi mu tënk ko ci araf yoo xam ne dafay doon ayab alquran bu leer nàññi ca jubloo bind moo xam day tàgg moo xam day ñaan moo xam day def leneen mu ne nag loolu mooy aaday sëñ tubaa ci ay wayam ak ay xasaa itam mu ne am na diir boo xam ne daanaka sax ma neef naa wax ne sëriñ bi wayut ak xasida wala mu noos téereb xam-xam lu mu gudd gudd gudd gudd lu dul ne da ko toftale ci arafi ayab alxuraan ci la ko tax a jóg waaye mu teg ci lu am solo mu ne wa hada mimma lam yusbaq ilayhi loolu daa mel ne bokk na ci mbir yi nga xam ne ma ne naa ne ñi ci jiitu sëñ bi bu fekkee ne am na bariwul lool te loolu nag day tegtale xootaayu jekku sëriñ bu mag bi mbooleem xeeti làng araab yi nga xam ne am na loolu boo demee ci anafaatul miskee da nga ko ci fekk sëriñ benn waxal boppam ci xasidagom te ni mi ngi ko tënkee wa innaka la ala xuluqin azim atat fi imtidaaxil mustafa ayu rabbihi bihi llahu asra lil ula wa huwa yacruju xaliixun bi an yuthna alayhi mawlaahu tuxraju nee na ay aaya alxuraan yu bare baree bari rod na ci alxuraan yoo xam ne day tàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne turam mooy almustapha ka ñu tànn moom de yàllaa ko yéege ba mu yéeg ca barab ya gën a kawe foofu nga day junju al isra wal mi'raj maanaam asra la ula foofu day ci tudd aka wane rañaan gim rañaanoon waaye waxu yaaruju da cay junj ba tey al mi'raj nga ne moom la suñ boroom defaloon ñaari xéewal yooyu mooy al isra wal te benn bi ci nekk alquranul karim wax ca lu yaatoo yaatu leeral na mu demee woon mu ne moom yonte bi alayhi salaatu salaam yeyoo na ñu kañ ko yeyoo na ñu tagg ko euh, ci xeeti tagg yépp mu ne fa am daaxuhu tagg yi nga xamee ne danañ ko ko tagg moom yonte bi alayhi salaatu wasalaam maanaam tagg yi ko sëñ Tuubaa di tagg min aay yi tox toxraju nee na dama koy génnee ci aayey yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nga ne kon loolu day wane na jël ab aaya tàgg ci yonti bi alayhi salaatu salaam moom sëriñ bi def na ko lu bëree bëree bëri phénomène boobu nag mooy zahiratu at lu yaatu la ci biir mbindum sëriñ bi lool sax dañuy joxe rek ay ayat quraaniya yoo xam ne sëriñ bi def na ci xasida goo xam ne da ko tëggee ci araf yooyu lu ci mel ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan muy aaya boo mi rot ci saaru al isra ak lu mel ne qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum ak lu mel ne rabbana axrijna min hadihi alqaryati adh ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira ak lu mel ne wa amri ila inna allaha basirun bil ibad ak lu mel ne laqad karramna ak lu mel ne wa kaana haqqan alayna nasrul muminin mel ne xasbunallahu wa ni'mal wakil lu mel ne wa mamnun yeneen aayaat yu baree baree bari yoo xam ne ku dellu ci diwaan bi nga xam ne sëriñ Abdul Ahad mbakke dajale woon na ko te dajale ci xasida yi nga xam ne sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu da ko tënkee ci ay aayay alquran da ca fekk lu ëpp lii ma wax ci ayaat yu baree bari yoo xam ne sëriñ bi def na ci xasida goo xam ne da koy tibbee ci araf yooyu li gën a yéeme sax wa innaka la ala xuluqin azim muy tàgguwu jot lool woo xam ne suñ borom da koo tàggee yonti bi alayhi salaatu wasalaam dangay gis ne sëñ bu mag bi radiallahu taala def na ci lu ëpp fanweeri xasida gu bokkut ak xasida gu siiw gi ne mooy muqaddimatul amdaax fi mazayal miftaax fanweeri xasida ak lu tegal loolu soo demee ci diwaan bi ñu tuddee diiwaanul fuyudaat alrabbaaniya alxadimiya almaxuusa min xurufi wa innaka la ala xuluqin azim dañ ca fekk lu yaatoo yaatoo yaatu waaye muqaddimatul amdaax moom it ku ko jàng settantal ko danga gis ne moom it ci yooyu la bokk am na diiwaan alquraaniya boo xam ne dafa làmboo xasida yi nga xam dañ koo tënke aaya alquran te sëriñ Moodu Jaañ dajale woon ko yàlla na ko yàlla dool li njëggal ak yërmaane nekkoon fii ci daaray kaamil waaye ku mel ne sëriñ seex abdul xaadir mu sëriñ seex maymuna mbàkke muy soxna may mu mu mag muy kubra moom liggéey na ci liggéey bu am solo mooy xasida yam dañ koo bindoon mbindi loxo yu ci bëree bari bindaat na ko ci machine ba mu gën a dëpp ak jamono nga xam ne kenn ku ci nekk euh, danga ko mën a jariñoo naar yi nga xam ne xëy na mënuñoo jàngalale danañ ko mën a jariñoo muy liggéey bu rëy rëy ñu ngi ko ci sant bu baax a baax waaye sëriñ bet ci wàll totoris yëmul ci aaya alxuraan rek waaye sax dañuy gis weer yi mu koy jël di ci tëgg ay xasida lu mel ne euh, rajabu shahrul akrami na xasir gom te noonu la ko tënkee nga day jël raa gi ci bayit jéem gi andi ci bayit baagi ba araf yeex ak liya marhaban bi rajabi ak lu mel ne euh, yowmul xamiisi fi ak lu mel ne yumnu kaddi shahri ka rajab ak lu mel ne jaada lana bi kaddi rajab ak lu mel ne kaddi rajab yooyu yépp gis nañu ay xasida yom nii sëriñ bi ci araf yooyu la ko euh, tëggee bu dee lu mel ne weeru safar muy weeru màggalu tuuba moom it gis nañ xasida yoo xam ne ci araf yooyu la koy tëggee safaru bam sa sin ak safaru bam sa sin janna ak safaru masasin jazaun lii ak lu mel ne xasida yoo xam te da ko tëggee ñeenti safar safar safar safar ak ba tey lu mel ne safaru matxi saydina ak lu mel ne safaru bamsa seen xojja ak euh, taaba safarul xaraaj ak bi yowmil ahadi safar ak yeneen yu xeetoog yooyu loolu ku dellu ci diwaan bi nga xam ne dañ cee tënk xaside yi nga xam ne moom la sëriñ bi tënkee safar dañ ca fekk lu yaatoo yaatu waaye ba ci teyit boo demee ci gàmm muy sahrul mawlid da fekk mu tëgg ci ay xasida yenn yi da koy tëggee ci laylatul mawlid mooy guddi gàmm yenn yi da koy tëggee ci bis bi mu yowmul mawlid lu mel ni ne sahru mawlidihi hada ak rabiul awwal wala lahu rabiul awwal ak fi rabiil awwal ak rabiul awwal daa ak za rabiul awal ak lu mel ne rabiul awal liya ak rabiul awal lii rabiul awal bika ak rabiul awal sahru rasulillahi sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ak yowma mawlidihi haada ak yowmal mawlid ama bak sosin ak mawlidu nabi lii ak yu mel noonu nga ne moom ku dellu ci diiwaan bi nga xam ne dañ cee dajale xasida yi sëriñ bi tënkee weeru gàmm dañ ca fekk lu yaatu lool waaye ba tey ci weeru ramadan muy weeru e, koor noonot lañu gisee mu ci tëgg ay xasida lu mel ni shahru ramadaana ak jazaawu shahri ramadan ak xoyooru shahri ramadan ak xubilali shahru ramadan ak dalika dahru ramadan ak lu mel ne min shahri ramadana ama jamsasin wa sawali jamsasin ak shahru ramadana rabiul awal ak shahru ramadana ama jamsasin wa sawalu jamsasin ak shahru ramadana shahru nuzuli kitaabillah ak min ramadani damsasihi ak lillahi shahru ramadan ak lu mel ne shahru ramadana rabiul awal ama lasasin ak bi sahri ramadaana massin ak yowmal thulatha fi awaili ramadan nga xam ne booy xool yi ci gën a yéeme mooy xasida yooyu eh, at mi nga xam ne ci la ko defee sax day feeñaale ci turu eh, xasida gim tëggee araf yooyu nga xam ne dafa nekk araf weer ci weer yi ne boo xoolee eh, da ci wanewaale léeg-léeg ci tëggin wi at mi nga xam ne ci la taalif xasida googu muy lu yéeme lool moom ku dellu ci diiwaan bi nga xam daa làmboo xasiday ramadaan yi da ca fekk lu yaatoo yaatoo yaat léegi yooyu ñu nag ñu doon wax ci di ko junju ñu joxe ci rek ay exemple yu néew ngir mu mën a leer ci ki koy dégg te xëy na dëgg dëgg dëgg ni mbir mi demee bu dee exemple yi ñu joxe ci yenn ci xasida yi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo xeewale sëriñ bi mu taalif ko te tëggee ko ci aaya alquran lu mel ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan boo jëlee xasida googu ginnaaw bi tuddee turu boroomam julli ci yonte bi alayhi salaatu salaam wane na ibliis yàlla naaguloo na ko ci moom araf bi ci njëkk rek mooy inna ibadi inna ibadi nga ne kon araf bi ci njëkk mooy hamza goo xam ne dañ koo dañ koo kasra mu jël hamza googu moom dal di koy fatxa daal di ciy tëgg benn bayit mooy ayasa minnillahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaawali jël innaga nuun nga ca nekk mu tëgg ca nafa li gayrillaahu qablu fii ndari bi ahli badril usuudi kadari kon gis nga nuun googu mu jëlaat nun gi da ko indi ñaari yoon nafa li gayrillaahu fii ndakaaru kulla adan li jarrahul makkaaru kon inna gi ñëw na ibaadi gi mu jël ko tëgg ci bayit bii di allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu dhil madina baa gi nekk ci ibaadi mu jël ko tëgg ci bayit bi barra'ani llaahu la daa konaakiri min kulli jaalibin ilal manaakiri nga noonu nga koy topp toppee ba aaya bi jeex muy xasida gu yéeme goo xam ne sëriñ bi da ciy tudd génn gim génn euh, Mbàkke Baari Jolof ngir dem wuy ji wooteeb borom Ndar ak yenn ci dëkk yi nga xam ne bi muy dem Gabon jaar na fa nga dëkk yu bare bari tudd na ko ci biir muy jeewal ndakaaru ndar lu mel ne Conakry lu mel ne Mayomba yooyu yépp dangay gis mu koy tudd ci biir xasida googu nga xam ne xasida gu yéeme la lool waaye boo jëlee lu mel ne xasbunallahu wa ni'mal wakil moom it ay xasida yu bari la ci sëriñ bi def waaye gi ci gën a siiw rek muy xamit man yaasimu nii min addarar min kulli saytaanin wa jinnin wa basar moom it boo jëlee xasbunal xas bu xasbunaa gi dangay gis xamitu mooy xaa siin gi ci tege mu tëgg ci bayit bi subhaanahu rabban xafidan axtami bi xifdihi min albala wa niqami muy xas bunaa gi baa mu tëgg ci bihi audu min hawaaya walla ayn wa min jamiil muthiyaat kulla xayn noon gi mu tëgg ci nawaytu an aduuhu mustasfian bi jaahi xibbihi safii sofaha gam ne xasbu naa alif gi ko ñoddi mu tëggee ca ahmadu sayyidil wara musalliya alayhi zaata wasulin li rabbiya xasida gi jeex moom it muy xasida gu yéeme goo xam ne kaaraange la gu sëriñ bi fegoo bi muy génn di wuy ji wooteeb borom ndar xasida gu yéeme la lool goo xam ne ku bëgg sangewu mën nga koy euh, sangewoo maanaam ku bëgg a aaru mën nga koy aaroo sëñ Modou Lamine wax na ci lu yaatu ca irwa un nadim waaye ba tey ñetteelu xasida gi ci yi ñuy joxe exemple ci yi nga xam ne sëriñ bi da koo tëggee ay aaya alxuraan lu mel ne wa innahu la kitaabun aziz muy aayab alxuraan nga daa jël mu sëriñ seex mu soxna may maymunatu alkobra mool nañ ko mool ci ay diiwaan ak ay mañ majmuwaat yu baree baree bari bi mu tàmbalee ba léegi lim ci génnee ci ay mañ at bari na waaye ñu bari ci murid yi xamuñu ko te nag doon loo xam daa war a tasaaroo waaye warta yam ci biir réew mii di Sénégal waaye daa war a génn Sénégal ndax lu mel ni lii sëñ jéeli doon bind réew naar mu mën a dem naar yi danañ ko mën a jëfandikoo nañ ko mën a jariñoo ndax mbind miñ ko bind dëppoo na ak mbindin miñ mën a jàng man koo liir man koo jariñoo bu baax a baax waaye ñu mel ne tamit waa arabita alxadimiya tàmbali nañ ci liggéey bu am solo boo xam ne bu mata ndokkeel la ndax diwaanu saadatil muridin fi am daaxi xayril mursalin sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne moo sos barab bi ñu nekk di daaray kaamil dajale woon ko ci ay jamonoom tuddee ko tur woowu mu ngi ci diwaan yii nekk suñu wet ñoom jël nañ ko bind ko comme nii sa njiili bindee diwaan yii wala mañ moo aat yii mbindin moo xam ne fu mën a àgg ci réewi naari naari nañ ko mën a jariñoo mool ko mool bu dëgër bu rafet lool ci lima waaye yemuñu ca def taqdim bu yaatu ci xamle sañ tubaa mi ko bind ak it jëmmi diwaan beeg li nga xam ne moom la làmboo ak at yiñ ko mool yi nga xam ne moo ci amoon ak yu ni mel waaye li ci gën a yéeme mooy ci suuf hamis bi baat boo xam dafa nekk baatub luga bu xaw a jafe ñoo andi ay bayaanaat yuñ ciy def ngir leeral ko ki koy jàng man koo xam bu dee sëriñ bi daa taddamin ci ab ayab alxuraan ñu isaara ko ci suuf ñu junj ko ci suuf mu dee ab xadis ñu junj ko ci suuf bu dee daa andi bayit boo xam ne xàbb wu njëkk wi wala xàbb wu mujj wi am na ku ko wayoon sëriñ bi jël ko mottali ko su boobaa ñu junj ko ci suuf loolu liggéey la bu am solo boo xam ne jàpp naa ne su continuer ba diwaan yépp mel noonu dana mën a doon loo xam ne ñépp dinañ ci mën a jariñu bu baax a baax te lu jiit loolu diwaanu si Ibrahima Diop almasuwaar yi def nañ ko comme noonu diwaanu soara u Mauritanie yi muy naari gànnaar yi mooy liggéey nañ ko comme comme noonu ak yeneen dawaawin yoo xam ne ñi ngi ci procès di ko liggéey kon loolu liñ ci jubloo wax rek mooy mbindum sëñ Tuubaa mi kon dañ ko war a jéem a weesale senegal ndax naar yi bëgg nañ sëriñ bi waaye mel na ne mbindum sëriñ bi eggagut ci ñoom kon fi ñuy daaneele mooy ku mel ne sëriñ Ibrahima Guèye mi nga xam ne aji woon na màkk ci ren jii te yàlla dogal mu doon lu kéemaane lool gis ngeen buy jàng xasiday sëñ Tuubaa ay jës bu ak yu mel ne ñoom ni ko naar yi di teewloo ni ko naar yi di dégloo mel na ne ñoom yàkkamti nañoo mos mbindum sëriñ bi maanaam yàkkamti nañ cee am lu bëree bëree bari loo xam ne day tasaaroo foofu ci màkk ak li ko wër ak madina ngir ñu man koo jàng mën a xam sëriñ bi mooy kan sufiyanke gi mu doon dund ak bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam lim ko jaral ak bëgg boroomam ndax ñu bari dañoo umpale sëriñ bi ku mel ni sëñ Ibrahima géey moomu jàpp naa ne waroon nañoo xool ay pexe yu ñuy def ba buñ dee ajeeti ñu jox leen ci xaside yii nga xam ne dañ koo bind mbindin mii nga xam ne fu mu dem naar yi dañ ko mën a jariñoo ñu yóbbu ca lim suñ demee teg ko ci loxo yi waroom xam-xam ya fa ne ak imaam yaak ñu mel na ñoom waaye bindaale benn nubza benn tënk bu gàtt ci dunduk sëriñ bi li tàmbalee bi mu ganee jamono ba ni mu làqoo am njàngam ak digganteem ak tubaab beeg yu ni mel ak ay taalifam ak yu xeetoog yooyu moom it copier ci lim bu baree baree bari wala mool ci lim bu baree bari ñu yóbbaale ko tasaare ko jox ko borom xam-xam yi ak imaam yi dana tax ñu gën a xam sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ndax sëriñ bi waruñu ko yemale ñun suñ biir rek mel ne daal daa mel ne ñun waa senegal képp ñoo ko moom déedéet sëñ Tuubaa xéewal la yàlla xéewale waa àdduna bépp comme ni ko Cheikh Sidiya Baba waxe waxee waxee woon xeewal nag daa war a yaatu waaye xéewal wër yam ci benn ruq rek ñu bëgg ko fii la war a yam ñiy bind xasida yi tamit di mbindi loxo yeet ñu gën a góorlu bu baax ci sàmmonteeg wérug lañuy bind ndax bari na ñuy bind jamono ji ñu toll seen loxo rafet na waaye boo dee liir lañuy bind day bari ay njuum te lool ci wàlla maska yi ci wàlla arut beeg yu mel na yooyu te ku xam sëriñ bi moom da xam ne yooyu moom mucc na ci waaye nag loxoy bindkat yooyu léeg-léeg day am jafe-jafe kon Euh, commission yoo xam ne dañuy topp mbind mi di ko saytu jot na tamit yoon wi yoon wi am ko ndax xasida yi daa bari lu ci ne loo xam ne euh, bu tasaaroo rek dana tax ñu gën a xam Serigne Touba waaye nag buñ koy tasaare nañ ko tasaare ci anam ga gën a wér kon daal lii rek mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a andi ngir waajalee ko bis bu màgg boobu nekk suñu kanam di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala may ñu fekke ko ak jàmm di sant bu baax. njiitul barab bi ñu ne suñu waajur sëriñ Moustapha Diatara ci jataayi xam-xam yi nga xam ne mi ngi koy amal ci daara ji di sant bu baaxit suñu mbokk sëriñ Ousseynou Diatara mi nga xam ne mooy coordonné jataay yu am solo yi ak commission bi nga xam ne ñooy commission scientifique bi koy taxawu ci njiitul sëriñ Basiru Diatara ak mbooleem ñi ñu ko àndal ñépp euh, di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala may ñuy egg ci bis bi ak jàmm ak salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu leen di nuyu leen ziyaar lu bari di ñaanal sëriñ Mountakha suñu borom subhaanahu wa yàggal ko fi ba naa li mu lislaam ak yoonu murit meegale yëpp te ñaan ko ak moom di ziyaare mbooleem jullit yi rawatina murit yi ci jamono yu màgg yi nga xam ne ci lañ nekk di sant bu baax sëriñ Mountakha ci bis bu am solo bii nga xam ne da koo taxawal muy bis boo xam ne da koo jagleel xasida yi sëriñ Tuubaa Euh, bis boobu nag doon bis boo xam ne bu rëy lool ci lislaam waaye rawatina ci yoonu murit bis boobu nag li ci mat a bàyyi xel rek mooy buñ ñu ne bisub xasida yi du bisub caaxaan du bisub fo di nekkut bis boo xam ne tamit dañ ciy wareelu rek fu ne nga dugg fa déedéet kon li ci war a jiitu mooy ñi nga xam ne ñoo ci ñëw ñu sellal yéene yi ak pas-pas yi sellal yéene yi ak pas-pas yi kenn ku fi ñëw daray àdduna rek warta nekk sa xol waaye yàlla moo war a fees dell sab xol ndax xasida yi moom daa yàlla kon nag lenn ci mbiri àdduna yi wareesu ko cee rax barab yi ñu koy defeet lu mel ne jumaa ji ak li ko wër ak jàkka yi barab yooyu war nañ ko laabal ba mu laab lu jiitu bis bi di agsi seetal ko ba mu set waaye barab yooyoot wareef na faa tuur ay gët laj ko lañ muy xeeñ lu neex ba buñ eggee ca bis bi nga xam ne ci lañ koy def ku fa ñëw ku ne rek xam ne barab bii méngoo na ak jàng xasiday sëñ Tuubaa yi moo xam dañ koy durus di ko jàng njàngum rajas muy kenn kenn walla ay kuréel di ko jàng wala daal xeet ñu ko mën a jàngee ñi koy jàng nañ ca ànd akuk sellal bañ caarax dara dara dara ci mbiri àdduna yi daray àdduna ki ñëw di jàng ginnaaw bu laabalee ab xolam ginnaaw bu sellalee yéeneem war naa laab ci ak colinam war naa laab ci xolam waaye war naa ànd ak ak teewlu jamono jami jàng xasiday sëriñ di teewlu bu baax a baax a baax a baax bu fekkee ne sax ay kenn kenn ay benn benn lañ buñ mënee jublu xibla moo gën ginnaaw bi laabee ba pare bu ñu mënee jublu xibla moo gën su fekkee ne ngànt nag daa am su boobaa côté boo mën a jublu rek nga jublu jublu côté boobee ndax bis la bu màgg lool bis la boo xam ne waroom xam-xam yet am nañ ci responsabilité bu mag a mag a mag ci di leeral xasiday sëriñ Tuubaa yi di leeral mbindum sëriñ bi di leeral njariñ yi ci ne di leeral ni nga xamee ne noonu lañ war a jëflantee ak xaside yi waaye di leeral it ndaka lañ ko war a mën a tasaare ba ñëpp man caa jot waaye di leeral it secret ak mbóot yi nga xam ne moo nekk ci biir bindkat yi nga xam ne ñoom ñooy bindkat yi Sëriñ Tuubaa yi bind xaside yi tamit ci bis bi am nañ ci responsabilité bu mag a mag a mag ci xaside yooyu nga xam ne ñoo ngi koy bind ñu bind ko ci anam goo xam ne anam gu wér lay doon ñu saytu ko topp ko ba mu wér ñu dog koo tasaare jàngkat yi moom wax nañ seen responsabilité ci bis bi ba pare ñi nga xam ne tamit yàlla dogal na ñu am doole ñu am doole yàlla jox na leen xéewal xéewal googu suñ boroom jox leen ci bis yu mel nii de war nañ cee feeñal xéewal googu bu baax a baax ci barab yi nga xam ne dañ fay dajaloo di jàng xasiday sëriñ Tuubaa yi ci bis bu màgg boobu ñu togg ay berne defar berne ay ñam ay naanu ya gën a teey yóbbu ko ca barab yooyu te nag buñ ko yóbboo ba mu àgg ca barab yooyu buñ koy séddale ñu seddale ko ci ak dal mu bañ a am benn coow ndax sëñ Muntaxa moom ku ne xam ne ne léppam ci lislaam la koy teg waaye léppam da koy teg ci soufisme kon sellal gi ak moytu coow moytu yuuxu moytu wëreelu moytu cee rax loo xamante ni bokku ci loolu moom luñ war di bàyyi xel la ci jamono ji ñu toll ndax léegi bari na ñuy jug di jàng day Sëriñ Tuubaa yi waaye léeg-léeg ñu koy jàngee ci air boo xam ne airu musicien yi lay doon te loolu jaaduwut du worma tey ku koy def ku ne na xam ne li muy def moom sëriñ bi bëgg ko te képp ku bëgg lu baaxit loolu bëggoo ko yooyu ñu koy moytanu ko bu baax a baax luñ gis rek roy ko jàpp ne lii baax na ab murit waru koo def murit day xool la baax te te dëppoo ak njàngaleem sëriñ bi mu koy def waaye bul toppandoo bul riirandoo bul doon ak al toppe murit daa warat sax ci ay principe yu dëgër ndax loolu mooy doxinu murit kon daal loolu fàttali bu buñ doon fàttali mbooleem ñi nga xam ne ñoo jug di fi ñëw ak ñiñ fiy fekk moo xam boroom xam-xam yi la moo xam ñiy bind xasida yi la moo xam ñi koy jàng la moo xam borom doole yi la ñun ñépp nañ ànd maase waajal ko waajtaay ba gën a mat te bu ñu àggee ca bis ba ñu defee ko defin wa gën a mat ndax jàpp naa ne buñ ko defee nam gën a matee suñ paree rek jubluwaay suñ muntaxa boobu mu ci doon dàkk danañ ko ci am teyit yaakaar ji tax mu koy def dana ko ci am ñu nit danañ ko ci am wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم